wéy seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ko toog seen bureau Core T4 Encore X4 ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store, améliorez votre quotidien. Bamba woon waa géej. ah mbokk yi ku nekk xam ne ni màggal Tuubaa gi lii dafa dajeek nawet bi a ah, waral ñu ni leen ay baas yu mucc ayib dëppook nag jamono ji ak nawet bi baas yoo xam ne day tëju fermé wu baas yu mucc ayib taaru lool tarafet waaye ku ci bëgg am nooy def xanaa nga woote ci numéro téléphone bi 77 251 04 05. sëriñ bi. maa ngi ak ziar bu ma tibbee ci sama biir xol jëmee ko ci sa jëmm ju tedd jii nuyoo yooyu ak ziar yooyu ànd ak cant ak ngërëm lu doy ngërëm loo xam ni ak cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem loolu nag li ko waral sëriñ bi mooy sa taxawaay bu rafet ba nga am ci biir réew mi ak lépp lu soxal réew mi mu ñëw nag tey ànd ak délégation bi ànd ak sama soxna ak délégation bi ñu ñëw ndokkale si la ci bés bu màgg bii di bésu xadimul rasul di bésu lislaam di bésu yoon wi di bésu Sénégal yëpp ak àdduna bi yëpp ma ñëwaat santati la bu baax na la jërëjëfati ndox sama xol sedd na lool sama xelit yokk na dal bu baax ginnaaw kàddu yu am solo yi nga yëkkati keroog jëmee ko sama jëmm ji keroog ba ngay fàttali taalibe yi ak jullit yi bésu Maam Borom Tuuba bi ñu dégmal ak waajal kàddu yooyu lu rëy la ci man sëriñ bi maa ngi la koy sante bu baax ndax xam naa yaa ma téyel sa bopp ci say loxo bopp ci tedd yi bëggal ma sa bopp ngir yàlla ak Sëñ Tuuba kon jërëjëfati ci lépp ba loolu tax na faw ma taxawaat yokkoon ci taxaw bi ma taxaw sawet ngir jàppale la ci liggéey bu mag bii ngay liggéeyal Sëñ Tuuba dëkk bu tedd bii ak ci yoon wi yëpp taxaw sa wet ngir jàppale la ci naal yooyu te bi ñu ci gën a ràññee te xam ne bokk na si li gën a nekk sa xol mooy daara ju mag ji di dara ju kawe ji te université Cheikh Al Khadim ñu fas yéen it euh, nekk sa wet ci boor boobu ndax liggéey boobu bu sottee dana bëri njëriñ lool lislaam bi bëri njëriñ Sénégal ak Afrique yëpp kon loolu it na jàppal ni gouvernement bi doona nekk sawet wet si lépp loo xam ne ginnaaw ba nga sumba liggéey bi def ci lu rëy li ci def lépp loo xam ne si sunu wet la danañ ko mottali bu ci yàlla andee man lay santaat sëriñ bi ndax bés yi ñu génn ci waxtaan bi ak ba mbas mi duggee ci réew mi yaa njëkk a wone wane yoon yëkkati alal ju takku dugal ko ci mbirum paj mi wone yoon joxe ndigal kon yaakaar naa ne li ñuy wax takkal sa masque ngir jëfe ndigalu sëriñ bi mhm. lu am njëriñ la ci réew mi te yaakaar naa ne bu ko taalibe yëpp jëfee ñu am màggal bu am solo ndax ren ku ne xam na àdduna bi ni mu doxee waaye am na nañu yaakaar ak yàqin ne lépp dina jàll si jàmm ak salaam kon maa ngi ñaan rek ne ñëpp jëfee ndigal loolee ginnaaw loolu nag xanaa fàttaliwaat rek sumb yi nga xam ne tam yëkkati woon naa ko ci dëkk bu tedd bi bokk na si lii di ay yoon rawatina benn bi jëm jóge Mbàkke jëm Kayel te Tuuba Mbul loolu yàlla def na lépp sotti na dañu xaar rek taw bi jeex nawet bi jeex ñu tàmbali liggéey boobu ci wàllu wér-gu-yaram it xam nga ne hôpital Matlaboul Fawzeyni liggéey bi sotti na juróom benn milliard ak juróom ñaar téeméeri million lañ ci def tax na mu nekk tey hôpital bu bees tax waaye nag bi gën a bokk tey ci hôpitaux yi gën xarañ ci biir Sénégal mooy bu mag bu ñuy defara incha allah fii ak juróom benn weer mois de mars la ñu gàttandu ñu inauguré ko boo joxee tur bi ñu si war a def danañ dana jël décret bi ci war ñu créé hôpital bu mag boobu ci Touba nga xam ne bu paree hôpital de niveau 3 la ci Sénégal mooy hôpital yu ëpp mandarga kon kenn dootu war a mën a jóge tuuba di wuti euh, pajukaay feneen Dakar wala feneen fanweeri milliard ak ñaar lañ ci def ci suñuy koppar ci hôpital boobule ci wàllu ndox yaakaar naa ni matuwaay yi ñu daan jël ci màggal jëlaat nañ ko. defaraat yenn ci ay château d'eau mën ndamaatu defaraat yenn ci ay forage waaye nag surtout yokk ndax dëkk bi lu muy màggee mooy laaj at mu ne faaw ñu yokk la defoon ba tax ma loolu it gouvernement bi mu si ñu yàqin ne euh, liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy tàmbali ci wàllu étude te ñu ñëwoon wan suñu yéene bu bu étude boobu paree danañ mën a ñoo waxtaan ak ci wàllu ndox mi nan nañ ci amee solution boo xam ne dana nekk solution bu yaatu bu yàgg waaye surtout bu joxe ndox mu sell ci dëkk bu tedd bi la. ci wàllu courant tam yaakaar naa ni làmp yi gis ngeen ko ci dëkk bi waaye ci Sénégal yëpp la loolu it dinañ ko gën a yaatal bu ci yàlla àndee. Euh, dama faral di wax lu bëri ci réalisation waaye dafay laaj leneen rek ñu fàttali ne taxawaay bi fi newoon démb tey la gën a dëgër tey la gën a tar si sa wet te loolu kanam rek la jëm incha allah kon loolu moo waraloon kàddu yi moo tax damay yeesalaat suñu taalibe si sa wet yeesalaat it taxawaay bi ak taxawaayu gouvernement bi yëpp ginnaaw bi ma la sant bu baax a baax sant njabootu Cheikh Ahmadou Bamba bi fi nekk yëpp eh, di borom ñu sama xarit sëñ Abdou Fata maa ngi koy tooñ léegi bi muy dugg mm-hmm. ak eh, maanaam sëñ Isaaxa mm-hmm. si rek ak nag di nuyu sëriñ Basiru Abdul Xaadir mi nga xam ne yaa ngi boole muy yor sa kaddu moom it am liggéey bu rafet bu mu ciy dox ak mboolam jabootu Cheikh Ahmadou Bamba bi teew fii ñun ñëpp ci suñu tur maa di nuyu di leen ziara di leen andil nuyoo ak ziara réew mi ak ndokkalu Sénégal ci bés bu mag bi ñu dégmal di la sàkku ñaan ñaanu réew mi yàlla def fi jàmm yaatal fi jàmm suñu borom it mottali ñu nawet bi nga xam ne am ci yaakaar te ñëpp muurloo ko nga xam ne xéewal yi dañu yaatu ci biir Sénégal dañu fàtte lépp lu doon ay jafe-jafe yu fi jotoon jaar kon nag yal na ko yàlla def te boo ci ñaanee ñu am si bu baax a baax yaakaar loolu moo doon kàddu lu gàtt rek yi ma bëggoon def di joxaat nuyoo bi nga xam ne moom soxna Maram mu ngi wax si suñu doom te jot sama nuyoo waaw waaw mu ngi lay mu ngi lay bu baax di la maa ngi sant bu baax di gërëm